sama këpp bi de gars yi break yi bëriwul sax de tuuti laay ñëw wax fukki minutes yooyu rek bala maa dem sama break yi bëriwul waaw damay delloo si liggéey kayam boot gars yi Gambia laa gis nit ñi di wax yi non boobu ba di complain mbiri nguur gi baaxut ma di leen egnoo rek boot yenn dama dee wax tuuti because du dee neex pour nga ignore leen gars am ngeen Gambia ah. Um, suñ président bi di Adama Barrow ñaanal leen ñu xam fu ñuy mujj ak moom loolu mooy dëgg yi because Gambie ni seen bopp ñoo xamul luñ bëgg ba pare ñoom ñu si bëri ñu ko dee support dañuy support ngir dara du ñuy support even Afrique seen président yëpp la duñuy ñuy support ngir ne gis nañ borom. ak ministère bi liggéey bi ñuy def ci nguur gi neex na leen baax na leen doyloo nañ ko déedéet président Adama Barrow bu mu toogee xees xam na ñu bëri ñu commencé woon di ko support man bokk naa si toog na lu mat benn benn ak lu teg ma soog koo support support naa ko lu mat benn at li taxoon mooy bu mu toogee xees dañ ko daan ñaawa naan ko jàngut jongut te man mi jàng ma du yeegu ne soo loolu daf daan tax ma yërëm ko jàng na ba jàngut ba dem university you know dem na high school ñu naan àngaleem yu baaxut ma du mën a amee réew mi bi ko jàngut suy wax ñu di ko tuutil waxam ji di ko ñaawal xam nga rek suñu askan wi li ñuy ñaawalee nit loolu gënoon naa tax ba man ma support ko ak ñu bëri di wax ne kii de su jàngutit ba mu toogee yàggut matu saxaat ngeen di ko ñaawal rek naan jàngut xamul dara xaar leen ba nga xam ne nii def na jikko ju bon ngeen soog a wax waaye ñàkk jàng gi naan àngaleem yi muy wax baaxut ak koregut loolu rek jarul bule ndax ñun ñu bëri suñu yaay yi jànguñu woon te kii dafa mel ni nit ku baax la dañ ko may chance soo nit ñu bëri jóg di ko dimbale waaye gannaaw buñ ko dimbalee ba ci kanam nit ñi nga xam ne gis nañ ne dimbale mi daal fa sant njaay ndax moom sama mas yi eput hôpital ba mu demut mooma naqadi Gàmbi seen hôpital yére comme gent te hôpital bu mag ba ne Gàmbi ne Banjul moo këtam ñoo dende bu sëqatee ñoo ñu dégg ko gi nga yaay jëme sax lu mu bonoon bonoon te mën a rey nit fa daan tëdd bu guddi mu jóg si mboŋu si mboŋ mooy sol yére sagar yu nu sol yére yoo xam ne doo xalaat nekk yaay jàmme la mu dem dugg ca hôpital ba bett nit ña seet nañuy liggéey gis ko aka seeti hôpital ba rek waaye président bi ku ko mës gis mu taxaw ci hôpital na wax man Ami Jóob de gisaguma ko gisaguma vidéo ba tey bam toogee tey juróom benni at mat na ko bu ko ndax juróomi at yi bi mu paase si lañ ko defal élection bi paase nii mu gañe ko élection boobu mu ko gañee léegi mat na xat bi mu matee xat nii yàggut ci Christmas gii la mat xat something like this xam na fa léegi juróom benni at ku ma sa gis vidéo président Barrow seeti hôpital ba surtout hôpital yi Banjul nga wax ma ko man xaw ma dafa am sëriñ bu ko xaayee hôpital yi ne ko boo fa demee dee xaw ma waaye lii du neen ñu bëri loolu lañ ko gën a yebee hôpital yam du taxaw seeti ko ñu vidéo ko waaye mu ngi dem ca marché ba di di jëndi ay koom dem ca ni kay ni kay ni ka ay ganaar di leen di leen di leen yar factory ganaar yi dem na fa taxaw dendee ganaar ya loolu yàgg na te ko gënoon a meree ba tax ma bokk ko ba support ma fekk ma demoon Gambie balaa corona gannaaw bu ma ko supportee benn naat ma dem Gambie tombeel may dem dem su ma rakkaam doom ma yóbbu ko ca hôpital ba gis hôpital ba hôpital yi Kanifing gis wanag ya mel wanag yi nit ñi fa ñuy wasin ba pare duñ mën a dem sebeni wanag ya yëpp seben la ak ndox taa tilim taqe sew ta bon wanag yu baax sax buñ wasinee ba pare dem taxaw ca sangu wala taxaw ca seben duñ ko am loola naqadi ma ak xam beneen jigéen bu newoon ca loppitaan ba ñu di ko wax xaw ma anti lan xaw ma anti nan jigéen bu dangaam bu mën a xaste boo xam ne ba tey nekkaani fiñ ca lopitaan foog naa moom fa ba dee di xas nit ña xas yoo xam ne loolu liggéey bu bon la management bu bon la ak yeneen ak yeneen yu ma fa gis rek waaye xam na it nit ña fa nit fa ñu baax ñuy liggéey waaye rek lopitaan ba daal système bi daal baaxut ma ne ah président Barrow de ku ma continuer di ko support ci lii te ba tey demul seeti lopitaan yi ndax di dem jëndi ay kom aka dem ci place yi ñuy yare ay ganaar seetaan hôpital yii kon naa féq laa kon fa mel ni li ma koy seetal bu weer dexee mu jox ma saako maalo bu ki jotee mu jox ma xar looloo tax te man faalewu ma xar ak saako maalo saako soble ak saako suukar weeru koor mu jox la loolu faalewu ma loolu suma bàmmeel moom ma ko gënal danaa toog di wax sama baat bi dee di dimbale président ngir xar xar lay jox ak saako suukar saako sobleeg yooyu yi président yi Afrique yi def suma ngor duma ko jëndee loolu ak suma askan suma vidéo yi saa wu ma koy def ngir loolu yal na naa muuma bu ma mën a tee wax saa wu may def vidéo ngir lu ma boroom di fay yàlla naa muuma yelloofu ma wax surtout loo xam ne askan waa ngi dee nga gis ko noppi di wax ngir xaalis ku mel noonu yal na nga muuma salaa def vidéo ci saa si boo maa ngi am bi ne ko ah président Barrow lii day neexul waaye dinaa la ko wax sa hôpital yële dem ca wax wax wax yi dara nit ñu bari ñu koy support wax wax dara demu ca hôpital seeti ko ba tey nit ña gedd ko ñu bari yeneen nit ñi continuer yeneen nit ñi nga xam ne bokkuñu woon ci moom néeg ba nga xam ne mu ngi waaj a toog li ma lay wax nii yàgg na de li ma lay wax fekk fa toog xees si la ko suma maas yi support lu mat benn at gis di dem ca hôpital faalewu ko ñu ba ñeneen ak ñeneen ba ñeneen ña continuer ñeneen ña nga xam ne supportuñ ko woon néeg ba muy waay ba juróomi at yi jege si ñu tëb dugg di defante direeku te gis hôpital de direeku ne mukk dana toog xëy lii moom may naqari ak ñu bëri gaayis man xaw ma na fañ bañoon daa ba toog fañ sibbutu te soxot te bañ sooseem xaw ma luy seen problème waaye du ne fañ doon support baro ndig fañ ko buggoon gis muy defar hôpital hôpital dara wecceeku fa boobaak léegi dégg nga biñ doon support baroog léegi ñaari at sax matu ko di ko support benn at rek la bu boobaak léegi ne mukk dana toogaat ci juróom continuer yeneen juróomi at di xuloo ba seen baat bi dee di defanteeg nit ñi ci vidéo yi ne mukk baro la ñuy support dafa ñaame te nit ñoo xam ne leen ay defkati vidéo lañ nit ñi xam nañ leen ok ba baro toogee ba pare matu sax ñaari weer ñu ci peelu nag mais ni kàkkataar gu sibbutu mais ni jaan ju sibbutu nag gars summeeku ba set nag ci peelu fële yow kay sa yow kay ma la doon dimbale waaye su ma yëgoon du ma la dimbale yow président Bara yow laa ñëw waxal si tey sa nguur gi baaxul ah réew mi nii ah hôpital yi nii lii fay metti suma bopp bi su ma gisee ñii gars ba suma yuur gi fay baax lii man jaaxle naa ci ñun loolu du dimbaleem naa féq ak féeg fañ ko doon dimbale foog ne suñ ko dimbalee ne ko yow yaa fi toog by force daa ba du fi toog keneen du toog fañ foogoon ne suñ paree fa leen di jox bi yama kaam fa leen di jox këtam lan bañ paree na wax ba seen baat bi xàncu dinaa féq baro seetaan leen ñu continuer xal ko seen xol bay butteeku na ñi dëkk di réew di ko xas bët bu set nag fi ne nii ñii nit gi nga Sénégal yi di seem gisoo ko ba lakk wow ne inoon nu mu tudd Kalafoon Sall mu ngi fi ne nii di wax mu ne Macky Sall ñoom ñu koy dimbale ba seen baat bi dee du leen di faale <laughs> man man maa rees sama sonn tey liggéey bi dafa biise <laughs> léegi tey ma demaat sa gars yi suma break yi <laughs> suñu askan wi ko dundu métit ba kon bis dof ndeysaan moo tax du ñuy def dara lu baax du ñuy def dara lu ñu dimbale li fa tàng xool ñun ñun barkeeguñ de suñ dund métit gi fañ ko indi ci politique beeg président yeeg nit ñi dimbale président ñëpp dundu métit ba kon fis dof te bon te féeg te ñeme xalal ju bon te soxot te féeg te bon ñii nit fi mu nii fa ñuy jóg di xuloo nag te fekk fa ñuy fenkat <laughs> réew moomay jooy <laughs> di ci xuloo di dimbale président yi la yi ak ministre yi la te wóor na leen ne président yi ak ministre yi président bi moom yi ñoo dul nangoo baax mooy problème bi du ne Afrique seen président yëpp soxot te bon rek noo danay xam yenn yenn yu baax wala xaw a tane loolu mooy dëgg yi waaye ministre yi ñoom xam nga ñoom ñëpp a war a ànd baax su ko defee réew mi mën a dox ministre bi féetoo fii baax ministre bu féetoo fële baax duñ ko nangu fiñ bugg jigéen te caga te mën a xam jànq gi nga ministre ay li ñuy am ci jànq xalal ji yëpp ca jànq lañ koy de xaw ma xam naa mu ngi sa vidéo mi di saaga rek soko faxal ko moo aadama ñu bëri askan wi leen def nii nga jàng ci ñoom rek te uytu bul indi doom yu mel ni ñoom faale wu ma man buñ ma saaga ñi ñi saaga maa ci gën a tuuti taxawal ma waxal la lii du caaxaan fa may naqadi mhm. man sama bireeg bi léegi mu jeex waaye su ma amee time fan yi naa toog def ci vidéo bu gudd ci mbiri Afrique politique yi leen fay tàng xol fi mu ne nii nit ñi jógati nañ riib ne président bi nangam nangam yu noonu xafa am ñu ko doon bu ko coup d'état sax bu yàggut ci sordaaram yi nit ña jóg naan yu ne beneen góor goo xam ne fa ne ci nu tudd ci daabo saabali saabali moo dugal boppam nañu waxante dëgg maanaam moo tax sama wàññi bëri duñ may bugg de su may wax may xool dëgg gi rek saabali su tëbee def vidéo ne président fañ koy génnee pour duhut élection bu kenn du xaar ba élection jot fay génn bàyyi foos ah loolu du mooy la mooy ne fañ lay coup d'état nañ waxante dëgg de wax loolu la def ko ci vidéo fàtt vidéo bi génn ci àddina si <laughs> xaw ma lu taxoon mu wax loolu ba ay léegi xam soor soldaar yi bëggoon a euh, coup d'état baro bu yàggut yéen yëgu leen ko <laughs> wallaay man mënumaa ree suñu askan yi ku ko topp ngay réew a de léegi baro jàppaleen xaw ma nu mu def ba jàppaleen sax and stuff you know <laughs> léegi baro boole ci kooku daal arrêté ko ki doon wax noonu saabale nit ña ne waru koo arrêté ah nit ñi nañ waxante dëgg saabale fa dugal boppam kat waaw arrêt sam mi ngeen di xeex naa waruñ ko woon a arrêt moo tax ma di leen seetaan fañ ko war a arrêt kay loolu mooy dëgg yi warutoon a wax loolu waaye nag dindi nañ ko bañ ko dindee nit ña naan waaw président boro Barrow nit ñee doon wax moo tax mu déglu nit ñi maas si faatu moom noonu faatu beneen faatu bi amee lifin faatu bu am yaram bi faatu yu mel ni Ami Jóob noonu daa amee télé boobu xaw ma télé xaw ma faatu Touré waaw mu ne président boro génnee na nit ñi déglu askan wi la doon déglu askan wi yëpp di wax ne ko fii fañ xam démocratique baxal saabali fi mu ne tijji na ko askan wi lay déglu ah loolu de waru koo wax loolu fay tax fi ne baro su arrêté nit ëllëg su ko askan wi di wax ba dee du ko tijj xam nga ñoom ñoo lay force pour nga nekk di foo wax loolu di wan baro ne ko du woo dara lu nit ñi wax ngay def yaa nit ñee lay wax li ñuy def li ngay def xamoo dara di ko xas ah nañ waxante dëgg bara ba tey président la doo ko mën a xeeb te gis nga yéen mënu leen politique yéen Afrique yéen ñu bëri ngeen a seen yuur gi fa nëb man ngeen a fa ne maa dof maa leen gën a wét gi nga yéen seen yenn tuutil président yi ngeen di def seen nit ñi buñ toogee fañ leen di def noonu ndax yéen wetu leen mooy li ma leen doon wax ne aada moom mi ak yeneen nit ñi saaga askan wi ngeen di laaj mel ni ko dof fi mu ne bu xaj yi jógee di saaga seen you know nu mu sëriñ yi ngeen mer ah ngeen a foogoon ne saaga yi doo gis sëriñ yi ok fi nekk ni yéen su président toogee ngeen because bugg leen président bi rek ngeen di ko xeeb xeeb góob di ko xas-xas yëpp di ko tuutil tuutil góob gu jéggi dayoo ngeen di jàngal askan wi ne lii is ok léegi seen président bi ngeen bugg bu toogee nit ñi noonu lañ koy def lu ko raw ndax dana leen neex noonu léegi yéen a ngi forcé Baro pour mu nekk dictateur dictateur lii mooy dëgg gi te Baro nekkul dictateur Baro Macky Sall moo ko gën a nekk dictateur f xam nga dictateur xaw ma Macky sàll mooy détecteur bu mag bi du Baro de yéen ko tey na ngeen a def léegi Baro du détecteur yéen a koy def loolu détecteur xaw ma détecteur xaw ma détecteur mënumaa wax sax ndax fi ne su fekkee jàpp na nit nit ka def lu mu watare ba mu jàpp ko ngeen ko génneel nit ki bàyyi force kii si kii bi sax noonu ngeen def ba boobu boobu kayita di campagne campagne yi na fekk yi le ñaari façon ngi groupe ñoo doon campagne góor ñi nga xam ne fañ bañ jigéen te mën a toroxal jigéen te bañ jigéen ju gëm boppam te naa fekk te dund métti te soxot te <laughs> tax ñu bañ jigéen jële xaw ma seen énergie sax tax ñu bañ jabari boobu yu noonu lu tax mu tëj la woon boobu you problème bi xam ngeen ko yéen Gambien yi ok jóg direeku te jil boobu bàyyi foos seena bu mbay nangam maa si si la yeeg góor ñu bon ñi yëpp jóg di tal yi jaay féeg di wax may ni ku bugg boobu te bugguñ boobu mënuñoo bugg ket moo tax ñu bañ jigéen even doo jigéen moo leen xam bu jur leen ok soo léegi ñu ne ci di wax yeneen jigéen ñi jóg di defanteeg ñoom xam ne li ñuy wax ni jaaduwul ak yeneen calaa-calaa yi ci bokk rek bi kon lu jóg ñu bokk ñu léegi topp ti jël boo bàyyi force ti jël boo bàyyi force di jël di wan nguur gi ne yaa koy wax lu muy def yow man ngaa wax nguur li muy def yu who a hell are you who the hell are you yàgg sa juróom-ñaari maam bay wax nguur lu muy def léegi ngeen di tax ba nguur gi ëllëg koo xam ne tëj na ko war koo tijji fekk moom moo ko war a tijji sax xool na ni mu demee ne fa ko war a tijji dootu ko tijjeeti su ko tijjee ngeen di ko tuutee di ko xas naan ko ñun ñoo lay wax lu ñuy lu ngay def kay gannaaw daf nga xamoo looy def ñun ngay déglu bàyyi foofu wéroo def leen seen bopp nit kon fis ngeen ta mën a yàq askan torop ngir seen dundu métit te kon fis dof nañ waxante dëgg faale wu ma ñàkk a faale you ñàkk a baro ma ci benn nguur dootuma neeti ci nguur baa dina tukki man Ami Jóob manumaa ne ci nguur kuy wax dëgg-dëgg du ma te du ma na ci benn nguur lu waaye def moo xam li tax nguur gi duñ baax si loolu laa dee focus li may wax nguur ak yëpp lay defar ngeen ko du déglu rek <laughs> président yeeg ministre yi ngeen di dóor bañ torox mooy suñ champion yi problème yaa leen di jàngal torox gi ba pare ñu mag nga ne ko bu ma toroxal ah bëggoo mu toroxal la te bu mu doyee gune yaa ngi koy toroxal ah, ok anyway that's another topic good luck feeg bawu leen di ngeen di toroxalee gune da ngeen yàgg am mag mu mag mu mag du leen toroxal président or not understand this soo buggee am mag ñu lay may jàmm ngay may gune yi jàmm ñu nokki ba toroxal yëpp yi ngay def gune yi ok ci daara yeeg yëpp te ku ko wax dee ok continuer leen di fawantu rek di jóg anyway guys man suma vidéo bi nu ma leen ko waxee rek du gudd bi ko suma break bi jeex na fukki minute ak juróom la woon but incha allah mën naa am suma amaatee beneen break bi nga xam genn wàll waxtu lay nekk dinaa ñëw wala am suba wala gannaaw suba liggéeyu si guddi so dinaa ñëw si ngoon def si débat mun a am ngeen dugg yu noonu Gambie ak Sénégal nguur yëpp ku bugg a dugg wax yu noonu mm-hmm. oytu leen bu leen ne di saagandee ngir président oytu leen bu leen di support fake nit ñi nga xam ne dañuy support fake seetaan leen leen bu leen ne di defanteeg ñoom fay fañ tàng xol te dañu problème seen support yi fake la moo tax ngay gis tey ñu dugg xëlëg ñu génn xëlëg ñu duggaat xëlëg ñu génn xëlëg ñu duggaat dem daw dem ca kële daw dem ca kële mais ni ko kon dof ñoom kenn danañ ñëw ci kii daw dem ca kële dawaat ñëwaat ci kii dawaat demaat ci kële duñ rus duñ tiit nag mais ni gone gu ndaw gu kon fis dof waaw seetaan lañ leen li ñuy def yëpp féeg lañ président yeeg ministre yi xam nañ ko waaye ñoom ci seen bopp dañ féeg ñoom ñu ci bëri moo tax ku ñëw di féeg ñu ànd ak yow rek di eh, yes yes may ni ko dof di nax askan wi rek ak a jos is waa waaw te naqadi te tàng xol bot hey dañuy jàpp si yàlla yenn yi because ñun li ñu dal mooy liñ rib moom la ñuy suuf laax ñu doon jax di toroxal gune yi toroxal jigéen ñi moom lañuy ñuy lekk léegi laax boobu moo ñor askan wi ñoo koy jàngal toroxal di xamee kër yoo xam ne du dëgg xamee famille yoo xam ne dëgg du fa dox ko wax dee toroxal gune yi toroxal jabar yi toroxal even yeneen jëkkër yi bot jabar yi lañ di gën a toroxal you know surtout xaawa yi xale yi mag ci kër yooyu noonu jàng toroxal nit ba masta ko nga jàngal leen ko ñu di ko gis nga di leen ko def sax bu ba pare ñu mag di la ko def doo ko bugg so xam leen ne su ngeen bëggee toroxal nit ñu wàññeeku yéen a koy njëkk commencé si kër yi nangoo dëgg nangu bàyyi toroxal nit du ngeen wax ne ngeen di toroxal nit si kër yi ba pare su nit ñi magee leen ngeen ne noo ok nga bugg leen a dégg boobu boobu mooy ndeyu mbil garab gi ok beneen garab bi ci kaw nag mooy bu leen nekk di saaga mun ngeen wax dëgg waaye bu mu leen jaral saaga ndey bu mu leen jaral yenn mer yëpp yee you know no it's not worth it ok just jàpp si yàlla you know calm down kenn ku am sa famille nga seet noo koy développé jàpp si yàlla doxal dëgg calm down yar gune yi wecci ba gune yi suñ magee buñ mel ni ñun you loolu rek mooy garab bi te doxal dëgg ok so guys maa ngi dem jërëgeen jëf ba si kanam incha naa leen si beneen vidéo ok guys no no seen xamalaan am yow foo nekk maa ngi fii Scotland xanaa waa guys ok bàyyi ba si kanam sama break bi jeex na te flow ma nekk tey dafa busy ñun ñaar la soo mun naa am keneen dina nekk di bos keneen di bos moom kenn du mun a dimbale ñëpp moo tax ok guys maa ngi dem ba si kanam dégg nga bàyyi yàlla may ñu jàmm may ñu gëm suñu bopp may ñu ñu xam suñ problème bi dëgg suñ ko xamee rek incha ndànk ndànk wecceeku naam ok guys waaw ba si Bye.